Alaaji Malick nuyu naa la. waay fay naa la. naka jàmm ak jamono waay di sant di leen gërëm rek. di leen wax mënuñu leen fay quoi. te mënuñu laa fay. mënu mënuñu leen fay. te mënuñu laa fay. ndax parce que lii sama yëpp la. sama daa am bis. ngen bàyyi seen lépp. yaa ngi dégg fu li ngeen jàppoon ak si li ngeen nekkoon lépp ñëw ci bis bi kon dama leen di sant di leen gërëm. yow laay déglu nag. ana waa Afia. waa Afia ñëpp a ngi fi. waa si jàmm maa ngi sant waa Afia gi yëpp sant Pikine gi yëpp Boy Zil seen adversaire est-ce xam ngeen adversaire bi ñu yor Fourrière. waaw Fourrière xam nañ ko bu baax champion la daf na fi ay jéego yoo xamante ne champion dañ ko koy nangul quoi waaw ñun nag xam nañu champion la ñuy bëreel quoi waaw. est xam ngeen Fourrière baax a baax. si xeex la si bëri. nañ ko. ndax parce que diggante moom ak Bébé loolu rek dafa doy confirmer na man champion laa quoi ndax bëri na ba daanu waaye gàcce ngaalaama la waaye champion dafay fekk champion Boy Jules ndaanaan la. ndaanaan dafay fekk ndaanaan. waaw ndaanaan la ndaanaan la ndaanaan la. mais Malick fu naa xale yi. waaw ibil na samay morom. Bébé Bismi moo ngi fi. nee na bañ ta bëre man waaye dafa am xeeru ngor moo ngi fi Siteu bu ngor moo ngi am na combat. booy yu ma booy yoo xamante ne bu ñëwul ma bëre ñoom laa lay wax. pare nga pour bëre la ñëpp ibbi naa buntu bi man Malick Ndiaye ibbi naa buntu bi na booy yëpp ñëw ñoom ñoo ko teree neex. promoteur dégg ngeen Malick li wax nee na ubbi na bor booy yëpp. noonu la demee su ma signaturé mu neex su ma bàqoo mu neex journée bu ma bokk damay suur gar damay suur grand combat bi loolu yàllaa ko def. loolu yàllaa ko def waaw kon jeex na tàkk kon yi la ñuy xaar. ubbil naa ñëpp buntu bi na ñëpp ñëw mbay jaxal xaw ma nu mu tudd baaba jaxal sa dégg naa am na combat mais ñoom ñëpp nañ ñëw ñoom ñëpp ubbil naa buntu la ñoom ñëpp na ñëw ma noq lañ bañ day ñoom ñëpp laay noq ñoom ñëpp sama yaram a tàng déggoo la booy ay ragal lañ xam nañ bi ñuy a ak ku dul fëgg ah, dafa am ngaa kay la wër mais naan tey da leen bi bàyyi ngeen jëm le premier waaw le premier janvier waaw ñoo ngi jëm si le premier janvier si diggante Balla Gaye Boy Niang mais alhamdulilahi rabil alamin ba Boy ci boppam lam sorti ba ma génnoon def dama say fekk si te ba ma kay wax pikin bi yëpp bañ non non mooy xale mooy war a dox ci koom moo war a xeex moo war a jàpp moo war a daan mooy xale moo war a dox lépp non ndax loolu non man digalu ma ko loolu ndax parce que seen première signature coow li bëri na yaa dégg ma yow seen première signature seen coow bëri na yaa dégg ma yow commentaire yi ñëw gars yi commentaire si di ñëw seet si ma ma commentaire si ne leen booy ñaa man digalu ma ko mu dox ci kaw Balla Gaye non digalu ma ko ndax parce que bëre lañ wax buy ma bëre du rayante tey boo ñëwee pour rayante man damay ñibbi moom bo ndi chaque jour nga gis mbër moo xamante ne arbitre danaan prip mu tàq ci kaw mbër ba muy bëreel yaa dégg ma ak yow dóor ko ay gauche droite mbër ma ñëw jóoloog moom bëtt ko daan ko jël bu rëy balaa moo xalaat xam ne daanu na mu egg suuf. combat boo ñaa Balla Gaye seen si Balla ñëw dirigé. man loolu laa bëgg. Balla Gaye même bu dee boppam. mais boo ñaa na def la tout. bëreel ma dem yee mooy li ma ko wax man fekk si na ma si. ndax parce que combat bi si une minute la tegoon ma ne ko non non seen si seen première signature sama rakk nga am na ko man digaluma la loolu len laa la digal bëre bi ndoxtu laal dugg génne la damyee la cokkaas Balla Gaye nga xeex ak moom si ñaari loxo daan ko sa ñaari loxo rek boo xeex ak moom boo ko dóoree ñaari loxo di ko dóor ñaari loxo mu koy dal xam naa ni moom am na jàmbaar boobu jàmbaarti bu nekk si moom boo xamante ne non loo mën def mu réagir mais buy réagir nag yow nag yaa indi sa xam nga réagir Balla Gaye day xeex ku am Balla Gaye xam ne day xeex. waaw day xeex moom moom nag ko ci combat bi. waaw Sénégal combat ma Gris Bordeaux. non combat ma Gris Bordeaux wala man Malick Ndiaye sama ñaata combat laa xeex yii xeexuma dafa am bu laaj xeex am combat bu laajul xeex. combat Boy Niang Balla Gaye laajul xeex. lan. combat Balla Gaye Boy Niang. non dafay mel ni ko damay conseil Balla Gaye man Pikine nga may wax ndax parce que Pikine ma ñor. boo doon koy xeex la wala da nga boo ñaa bu ma ko doon nii bu ma ko yóbboon dama koy xeexloo mais xeexloo bu ma koy xeexloo dugg ko dugg ko ka génn la dugg ko ka génn la te bu ma neexee sax na ko xeexal ak maag moom si ñaari loxo fexeel ba tuus nga tuus ko nga tuuse ko ñaari loxo rek mu dal ko ci kanam Balla Gaye day réagir bu bu stade bi yuuxoo moom mu ndax parce que loolu deretam la su moom la ne. Balla Gaye ko yóbboon. a Balla Gaye la ko yóbboon. non Balla Gaye di ko ñaanal jàmm ak salaam rek ak ay mbokkam ak ay njabootam yaa dégg mooy yow di ñaanal Boy ak salaam moom ak ay waa këram ak ay njabootam. jour ba jouru combat bi. yàlla may ko ci kàttanu yàlla loolu la ñu ñaan. merci Malick. waaw sant yàlla ah jaajëf waaw ñi la jaajëfal rek kontaan nañ rek mooy saa su ne li ma leen wax xew ñu wuy si la yombul. te na ngeen bàyyi seen lépp ñëw sama daq xew la muy Boy Jules ngeen bàyyi seen lépp ñëw si open press bi kon dama leen di sant di leen gërëm affaire bi Pikine la nag xale yaa ngi nii dañoo dañoo namu combat dañoo moon nopp leen bañ day dégg nga ñoo supporter bi combat ah? booy ay tàppal lañ dafa gay dë na ma may chance yaa dégg fu ma yow gii ni bay bu na ma may chance te tijji naa buntu yëpp. ñëpp na boo yëpp ñëw. a ma ñëw affaire ñu waxtaan. foog ma daan leen ñoom ñëpp nokku leen bañ day déggoo lu ma wax de. ca Aliya bu le ca Kafe ga. lépp di xawee. Aliya waaw noonu la demee